notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie général TQG du noppi ngir améliorer ay service am gamme bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure buy ruy solution baa ngi TQG indil na la ay poignées yu haut de ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignées en inox maanaam yu couleur bi dul changer mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox canaux yi tamit TQG indi na leen ci yu am kaaraange serrure détachable sérial ak radial TQG ñi ngi ci 65 rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité d'Amel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33 879 28 yi jullit yi gannaaw bu nu sante suñu borom subhaanahu wa taala doonte lottu nañ ci sant ko ci lim ñu defal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad di baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yépp ci xew-xew bi nga xam ne ci lañu génn te nit ñi toggoo ci ay jëf yu baax yu nekk yàlla na ko yàlla nangu di massawu jullit yépp tey jaale mbokki jullit yépp ak mbokk réew mi yépp ñi nga xam ne dañ doon ñëw di wuy si woote bi te jotuñoo agsi yàlla na leen yàlla gàttandoo yërmandeem te njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla subhanahu wa tegal ci boppam loxo kenn ku ci nekk fu mu féete woon ak njabootam yàlla mi ngi fi yàlla na ko fa yàlla féete ñi nga xam ne it amoon nañ yéene ci seen jege ñaay la yu leen jege ñoom it yàlla na leen fi yàlla bàyyi bañu mën a àggale seen yéene ci njaboot gi dellu di jaale jullit yépp kilifa gu mag xaaji euh, Ibrahima Niass euh, buñ gisee nag yàlla di tudd ci alxuraan ay turi nit gis nañ ci wadkur fi lkitaabi muusa wadkur fi lkitaabi idris wadkur fi lkitaabi ibrahim suñ gisee ñu di leen tudd ci alxuraan ba kenn du leen fàtte doonut ne li tax du desu leen fàtte mooy diw moo leen jur wala diw jur leen waaye diir bi ñu fi nekk ci kaw suuf dañoo amaloon nit ñi njariñ moom mii nag bokk na ci ñi nga xam ne dañoo jàng ba am xam-xam fab jàngale xam-xam def ko seenub liggéey ba ñu bare bare jaare ci moom am xam-xam yàlla na ko yàlla fay te yërëm ko te moom itam tegal ko loxo ci njaboot gi euh, tudd naa léegi euh, ba jaale ñi doon ñëw te jotuñoo agsi kilifa gi it tudd na seeni tudd na leen waaye nag bokk yi ñu dellu xam ne waru garu dem jaala ji sa mbokkum jullit ci yi fi bi bàyyi la te dara ko def ñi nga xam ne ñépp doon nañ ñëw te des ci yoon wi ñu ci bari mënees naa xam fuñ dëkk ak seeni bokk moo xam bokk yi dañoo nekk fii ci dëkk bi ñu doon ñibbisi wala ñu dëkk woon feneen jóge woon fa doon ñëw ngir war a delluwaat ñooñu nag bokk yi su fekkee màggal gi am na karawaan buy wër ci réew mi ak bitim réew warugar la ci karawaan boobu mu toppaat réew mi néeg bu nekk mu taxaw fa ne ñoo ngi leen di jaale seen mbokk mi gaañu te doon ñëw ci màggal gi loolu it warugar la woo xam ne li fekk defaguñ ko du leen wàcc euh, ki ma tudd léegi itam tudd xam-xamam euh, xam-xam ku ko am daa fekk mu am ba noppi moom mu gën a àdduna juddu bu ñu jëlee misaal ci sëriñ bi ñu doon wooteel woote bi ak Cheikhul Xadim am na ñu ko jëkk a feeñ ci kër Mamoor Anta Sali am nañu ko ci mujj feeñ kon amuñu ko moom amu ko moom kepp waaye su ngeen gisee ñi ko jëkk a ñëw ak ñi ko mujj a ñëw tamit tam bokk ak ñoom li mu bokk ak ñoom ñépp nangul ko mayuk yàlla ci la de waaye ak góorgóorloom ak ak farloom moo waral ba mu wootee ñépp wuy si ko nangul ko ndax ba muy woote ña jëkk jëkk wuy si gone nekku ci woon ku xamul dara nekku ci woon ñoom seen daara daara la woon joo xam ne ñu bari ñoo fa indi seen bopp kon mënoon nañ ay mag lañ te booba dox dëkk ak dëkk nii mu yomb yombiwu ko woon kon ay gone nekku ci woon waaye la waral ba mu wootee ñu nangu ca saa saasa am na ci ñoo xam ne moo leen daal jàngal bañ xam ne kii moo leen sut fuuf te ku la sutut mënu laa maykar lu la sutut rek mënu laa maykar am na ci ñoo xam ne jikkoom lañ xool ba mu doy leen ba mu waxee rek ñu ne ko soo waxoon lu gën a garaaw lii itam ñu nangu kon loolu ak góor góorgóorloom la kon nit ñëwul ñëwoon si yépp war nañoo xam ne yàlla lam yoroon di ko joxe moom mi koy joxe du fi jóg ku ko wut na ko gaa yi daan wute mën nga cee am lu bari li ñu koy yéem yéem di waxtaane ay jaar-jaaraam it ñépp war nañoo xam ne bu yaafus amutoon lu mën a doon lu ñu koy tudd ci ay may waroon naa weesu fii mu toll ndax ba mu koy wut moom kenn moo àndoon te léegi mbooloo mi gën naa bari am na si ñoo xam ne li liñ man sëñ bi mënu ko woon boobu am na ñu liñ man sëñ Tuubaa mënu ko woon borom Tuubaa mënu ko woon bi mu fi nekk mën nañoo dem fu mu musta dem mën nañoo joxe lu mu musta joxe mën nañoo nekk fu mu musta nekk di tukki di dugg ci ay daaba ak daamar yoo xam ne musu ca dugg kon dañu ko war a def ab royukaay di ko xool kenn ku ci nekk kër gam nekk kër baayam wala kër nangamam bu ko yàlla dimbalee ba mu nekk fi ba koo ko dundal ko ba mu man dara daa war a fexee man lu ëpple koo ko doon man raw koo ko rawanteeg moom te fas ko yéene raw waaye doonut loo xam ne rek lekk ko moo ci des su fekkoon ne lekk ko moo ci des ñun duñu fekk dara ñu jëkkoon lekk nañ ko ba mu jeex waaye lekk taxu koo jóg da nga lekk ba muy jàngaloo mag ñi di leen fit fit mooy ku xam aaya sàngam ak ba ca topp ak ba ko jiitu daf leen a fit ci téereem yi ci mbindam yi xasidaam yi am na ci bayit wum jëfandikoo <clears throat> euh, laaj na ko ay jàngkat ku ne wax ca lam ci dégg waaye lam ko tekkee mooy li may wax nii rek lahu xitaabi daaiya bima yuxibu maadiya wa qaada li agraadiya zaadan li daril karame nee na diw noo ko dégge mu ne ko noonu rek laa ko dégge ki may waxal di ko ñaan di ko woo te wóor na ma ne dana ma wuyu ndax moo ne ku ma woo ma wuyu la ku ma ñaan ma may la kooku moo ma jox la ma bëggoon lépp waaye nag zaadan li daaral karam ma def ko yóbbal may yi ñu gis mu ne gàññi moom jubluwut ñi di ko lekk ca lay wax ba tàng jër ba ne yetti mbett a ngi nii yoo xam ne gis naa ko ngeen gis ko dana amub ñeenteel ma ngi ca kanam lu ne ci kanam rawuti bët rawuti gët bett ngeen ma ndax lii ma nekk nim naqaree xamoo fooy boo xëyee doo xam fooy yandu tey soo yendoo ba ngoon doo xam fay fanaani lu metti la te yàlla nga ko jaarale ci loxo yi ay nit xaw ma woon ni lu mettee nii des na ma ci toppe nii ñu ma ci toppe waaye am na ci ñooñ nag bett naa leen ñoom itam ndax bi ma leen gestoo euh, ñaag leen xamuñu woon ne biñ may topp dinañ ci amam ñaag ndax bi mu nekkee fii ci Mbakke Mbakke Bawal ak Daaru Salaam am na ku ko mës di soxna su ko të lu nañu laaj ko mu jox ko ci lim loo xam ne ca la lijjantee lépp mu doon mbamb ñu naan ndekete yëf yi maye soxna bokk na ci léegi mu ne nag bett naa leen foofu waaye yéen it bett ngeen ma li ëpp ci yéen bert na ma ndax xaw ma woon ne it ku ma ñaag day toog di ko lekk waaye ñaag yooyu zaadan li këram karami daal lañ ko defaloon xam naa kuy dem di lekk waaye xawuma ku toog nag di lekk bu noppee fas yéene dem déedéet dangay dem di lekk dangay dem ba lekk jot nga toog ci askar mos fa tuuti naan fas ndox wéyal saw yoon kon yëf yi lekk ko taxu koo jóg bu ñëpp fexee ba kenn ku ci nekk kër ga muy yewwu mu raw boroom kër ga léppay baax bii bis bii laata ñëw nag li dal moroomi bisam yépp dal na ko moom fukk ak juróom-ñett ci safar nettali rek fii ne moo ci mujj bërki démb la woon bërkati démb la woon ba yàgg ñu naan daaw la woon teewul nag boo ñëwee ci dëkk bi da gis ay màndargaam yi wane ne bu yàggutoo la fa jaar ndax danga gis mbedd mi fees dell ak i këyit ak i mbuus ak lekk yoo xam ne daa des ñu sotti ko ci mbedd mi noonu la àddunay demee bis la bopp fàttaliku kese la am na baat boo xam ne kenn ci gan ñi ñëwoon ci ndaje mu mag mi àdduna bi doon wuy si tudd na ko te baat boobu dañ koy daw kooka dana wax ma nga dëkk ci naan dana sëñ bi muqaawamaam ak tubaab bi muqaawama mooy jàkkaarloo ak jàmmaarloo ak tubaab bi ñooñu ñooñu ko gën a dégg maa ngi wax sëñ genn kilifa léegi ne ko ñun bu ñu yeexee ñu jóge bitim réew danañ ko jël ci suñuy loxo yóbbu ko ñu bëgg sa jotaat mu tëñu ticc ndax xamuñu lu njariñam doon baatu muqaawama la waaj a jëfandikoo mooy jàmmarloo ak benn waay mu ne fii lay jaar nga ne ko doo fi jaar fii laay jaar jàll nga ne ko doo fi jaar jàll moo ne dañuy jëfandikoo ndam lu mu am ana nit di amee ndam te jàkkaarloo kenn xeex ak moom loolu xam waxuma la xam-xam waaye xel sax nanguwu ko gannaaw jàll na nag nañ xam ne yóbbaale nañu kenn ku nekk ci ñun moom la sëñ bi wax ci asiru ma al abraar shuhuri wa ayaami gadan lii shawaahidu bis yii fenk fekk ma fi ak weer yi ak at yi ci topp ñoom laa jël def leen seere sama diggante ak sama boroom xam ne lii ak lii moo ma tax a jóg kon bis bu ñëw bu fi ci nit yandoo di dund rek bis ba jàllee dana ko yóbbul lam ñuy yóbbul nag yàlla na doon lu ñu bëgg ko nettali fépp su boobaa nag kenn ku ci nekk war naa taxaw xoolaat boppam lam tegoon boppam ci ay coono ci togg du jox ku xiif génn sa néeg joxe ko lu loo am lu nekk nga nangu koo ñàkk keneen jariñoo ko rikk loolu bu mu yam rek ci bisub keroog nañ ko wéyal fenn fu waay jëmit diggante ba muy àgg fa mu jëm lu mu mën ci dimbale ñim àndal ci yoon yi mu def ko bu àggee it nii mu ko miine woon ci dëkk bi fan yooyoo ko su néew mu xam ne yàlla mi taxoon mu di ko def yàlla amut bis bu ñu koy dàkk amut weer yu ñu koy dàkk doonte léeg-léeg mu joxoñ bis wala wala weer kon jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne moom taqwallah mooy doon aw bàkkam waaye boo ko séenee muy ñëw mbubb ma muy solit day dëppoo lool ak taqwallah gi ne ci biir xolom tam di ko bàkkoo euh, jullit dëgg-dëgg nag xew-xew yi mën na koo tax a dolli la doon def waaye jàll gi du tax mu bàyyi am na ci ñooñ nag su bis yu ne mel di ñëw kër kër ju nekk danañu ko def ci lu baax euh, di def ithaar luñ bëgg a jariñoo lu nekk bu ko keneen bu leen ko keneen gënee soxla ñu jox ko ko waaye bu jàllee jàll ma bu jàllee rek jàll na yàlla noonu yàlla musal ci loolu yàlla du ko ñuy dàkk amut kër amut barab amut waxtu te dara du ko raw wax na ci alxuraan ne ku dëkk ma yàlla ba yàlla di ko gàttandu ba rikk bu mu wàññeeku yàlla nañu ci yàlla musal am na fi muy wax ci alxuraan it ne kum neex mën ngaa bokk ci ñeneen ci kanam yàlla nañu ci waaye kum neex it kooka moom mën naa bokk ci ñi mujj ci gannaaw yàlla nañu yàlla musal ci law am na fi muy wax it ne li ngeen di def fii ci kaw suuf bu leen yaakaar ne fii rek lay yam bu ëllëgee it kenn ku ci nekk daañ la taajal ci sa kanam la nga fi nekk woon nga raw ñu bari wala nga yées ñëpp nga raw ñu bari yàlla nañu ci yàlla boole nga yées ñëpp yàlla nañu ci yàlla musal euh, sayyidatuna Aïcha nee na mas sañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yi jën jëf moo ci gër mu ne jase gën a sax ak lum néew néew dee leen fexe bay tëgg seen bopp seen jamono yépp di def lu baax saa bu ngeen jëfee farata ba noppi seen jaan wàcc dugg leen ci nawaafil yi ba sëñ bu mag bi di laaj nit ñaar yow ci loo ne kenn ka ne ko maa ngi ca la ma digaloon kenn ko wax ko lam la muy xëyee ak di ko gontoo mu ne ko man de foofu ngeen nekk fépp nekkuma fii man de fi ma nekk mooy maa ngi xëy ci farata di ci sunna di dallu ci mustaxab ak mandu kon képp koo xam ne euh, ñi ngi ko doon bàkke ci màggal gi moo dàq bernde na xam ne yàlla mim doon wut di ko di ko dàkk ci màggal gi nit la moom nit la moom nit la moom daa am fu muy dem ak fu mu dut nekk na xam ne yàlla moom yi moom mi ngi fépp bernde boobu yi mu doon def fu mu gisatu ñu ko soxla na leen ko defal waaye ñi nga xam ne it dañoo fonkoon lool bu julli jotee bu ñu déggee nodd rek dutuñu am yitte fenn lu dul dugg ci jumaa ji julli fa ñu xam ne jumaa fu mu mën a nekk yàllaa ko moom bu fekkee jumaa ji mu doon dugg yàlla taxoon fu jumaa mën a nekk yàllaa tax yàlla ma nga fa fu ngeen jublu fa aynama tuwallu fa samma wajhullah la ko waraloon mooy daa am ñu daan dàkk yàlla par at di dem fi barab di fa rey seeni gàtt di ko dénk seenu njaboot bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngale mooy leen aynama tuwallu lillahi almashriq walmaghrib fa aynama fa samma wajhullahi inna allaha waasiun alim kon julli juróomi ngi noonu na ko ñëpp yóbbaale ñi nga xam ne it jàng alxuraan jaraloon na leen jël lu bari ci seen waxtu ci fan yi di ko jàng alxuraan ñu xam ne it loola ab yoolam ma ngay wéy waaye ñi nga xam ne mënuñu woon a jàng alxuraan yàlla leen ko nattoo waaye asan nañoo jël seen alal di ko jox ko jàng alxuraan it nañ xam ne loolu mu ngi fépp ñu xam ne yàlla dafa teg ci suñ kaw te li fekk ñu mu ngi dund duñu wàcc ñu war koo jaamu jaamu yàlla jaamu ko nag amut fu muy fekk nit te du ko fa mën a defe moo xam mu fekk ko ci kaw suuf waxaale wuñ ko dana gën a yomb mu fekk ko ci kaw avion mu fekk ko ci biir géej fépp yàllaa ko moom fenn fu ci nekk bu dee yi dem ci géej gi wala ci jaww ji bëgg xam nuñ cee jaamoo nuñ cee jullee bu julli yotee na dem ci borom xam-xam ba ko gën a jege mu leeral la ko lislaam di taxaw fenn saa su nekk mu am fu mu jar génn ñu xam ne li la ñu santoon ci màggal gi rek nañ toog dégluwaat déedéet jaamu yàlla li fekk nit a ngi dund waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin te ñu xam ne saa bu màggal ñëwee ba jàll ku ko fekke woon daaw na xam ne atum lëm manqué na ci dundam te duutu dellu si diggante màggalug daaw googu ren lu mu ci def xam na ko na gaaw wàññiku su fekkee la mu def xam na ko moog yàlla yàlla sutural na ko na gaaw wàññiku su fekkee nit la ko séqaloon na gaaw dem jéggalu koo ko ba mu jéggal ko baloo ko ba mu baal ko mu tàmbalee waate bind këyit bu bes peq tañaan yàlla fekke war ko déwén waaye yàlla nañu yàlla musal ci xol boo xam ne ku leen di ku koy waar kuy waar xol ba day yàkkamti mu bàyyi mu noppi walla su xawee yàgg tuuti mu ne lii ngay wax di yàgg naa koo dégg diw wax na ko ba tàyyi diw wax na ko ba tàyyi diw nag bu mu tàyyi ci di wax moom bu yàggee lu mu néew néew kenn dana ko jël ba yóbbu ko jëfe ko yàlla fay ko waaye ku yeew dëgg ci kaw suuf des na ko tuddee koo xam ne ku mu jëflantaan nax la wala lu ne mu am ca pexe waaye ku yeewu dëgg mooy koo xam ne daa wog loxoy mbubbam ak tànki tubayam loolu bu njëkkoon boo ko masaan gis fas dara ca gannaaw ma ki daa topp fas ne dox ki yeewu dëgg mooy kon ki wogu ci jëm ci ndigali suñu borom yi doonte day am ay bis yu mu dàkk yàlla santaane su bis yi ñëwee mu fexe ba kenn mañ ko caa man waaye su bisee jàllee it mu fexe ba làgg ca nam làggee woon ba nam na doon defee barki dem te xam ne lu ñuy séentu muy gën di jege si ku dund da ko fekkee lu mu yàgg-yàgg waaye su xasee ba agsi jàll na ba noppi buy jàll nag yàlla nañu yóbbalee lu ne gàññ ndax sëñ moo bind ci téeram ne waroom xam-xam yi nee nañ gan moom kenn mënu koo tere yaar di xool ni ngeen koy defal ni ngeen def ci ngan gi benn mooy bi ngeen fi nekkee mu nekk ci waaye bu demee dem moom nga nekk fi yow dong kenn mënu koo tey naatari lam fi fekke woon lam fi nekke woon kon yàlla nu yàlla dimbali ba suñuy tànk mu néew mu bari bu ñu koy dox na doon jëm ci santaane suñu borom te it bu ñu cay nekk yàlla bu ñu ca gis suñu bopp yàlla bu ñu si kenn wan suñu bopp yal na yàlla delloosi ko ci jàmm te fi ci jàmm te mu yàgg lool te ci tase ak ngërëmul suñu borom Notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie Générale TQG du noppi ngir améliorer ay service am gamme bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure buy ruy solution baa ngi TQG indil na la ay poignées haut de gamme ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignées en inox maanaam yu couleur bi dul changer mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox kano yi tamit TQG indil na leen ci yu am kaaraange serrure détachable céréale ak radial TQG. ñu ngi ci 65 rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité d'Amel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33 879 28 28.